Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te ci bile jamono Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor la mburu bi yu wóor te doxale jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono info.net Seneinfo International jërë ngeen jëf di am mbégte ak contentement ni ñu koy defee saa su nekk rek di si seen yor yoru Seneinfo ma di ci ànd ba tey ak sama naataangoo bi di Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf dama koy bàyyi mu nuyoo rek ñu daal di ñëw ak yéen ci seeni xibaaru yor yoru Seneinfo Buur Sine. waaleykum salaam soxna Asel maa ngi lay di la jaajëfal bu ba a euh, nuyu suñu cadre bi Abdel di nuyu itam mbokku internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel saa su ne suñu différentes plateformes yi muy euh, site bi seneinfo point net chaîne YouTube bi euh, seneinfo international ak li nga xam ne mooy suñu réseaux sociaux yi. Euh, YouTube Instagram ak Facebook ak yi ni mel kon nag di amaat kontaan bu baax rek di leen ànd ak yow ci Yoor Yooru Seneinfo mm-hmm. jërëjëf Bour Sine am na tey euh, ñuy tënk waxtaan bi rek si cinq points bu si njëkk nag mooy li nga xam ne ñu ngi si jëm weeru koor gi nga xam ne suñu suma juulee war naa tàmbali suba ginnaaw bi nga xam ne war nañoo def séntu bu njëkk euh, tey jilee si loolu tamit ñu ñëw si Ousmane Sonko mi nga xam ne dañ ko hospitalisé fële ca suma assistance ñu gis ne kii di propriétaire bi Babacar Niang docteur Babacar Niang ñu gis ne yoon dafa daal di ko teg loxo si loolu yëpp ñu ñëw si ay yaram na xëy na may bàyyi bu si mu ñëw si ay yenn si ay yaatal ci loolu tamit ñu gis ne moom euh, Ousmane Sonko kii di médecin bi ko doon faj médecin moom Ousmane Cissé nga xam ne tamit ne laawul benn yoon si ko Ousmane Sonko point yu bëri ñu ñu ñu mel si mbirum Ousmane Sonko à hospitalisation bi mu amal ci suma assistance dinañ si ñëwaat. ci loolu bata tey ñu ñu wax yenn si rapport bi nga xam ne benn département américain def na ko si wàllum tolluwaayu réew mi si àq ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal. ñu continué ak yéen si grève bi nga xam ne yile enseignant amal nañ ko di waa CUSEMS e mu nekk grève bu 48 heures ni ki démb ba fii ñuy wax ak yéen ñu jeexal seen yor-yor rek ak wàllum sport ñu ñëw si suñu gaynde yi ngeen xam ne. dinañ amal ab jàkkaarloo ak équipe bi du Mozambique le 24 mars maanaam si àjjuma ji pour match aller amal match retour tamit le 28 mars si loolu yëpp ñu indi si. ay yàttal waaye bu laataa loolu ñu njëkk si weeru koor bi nga xam ne dafa nekk weer wu sell nekk weer boo xamante ne nii dina jox jullit bu nekk opportunité mu xoolaat boppam mu gën see jaamu yàlla si loolu yëpp ñu gis ne séntu bu njëkk suma juumul defoon nañ ko démb waaye tey tamit war nañoo defaat séntu ba fii mu toll nii. ba si information yi ñu jot a am koor bi war nañ koo tàmbali suba xam naa dama lay bàyyi nga indi si ay yaatal rek laataa waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee rek euh, weeru koor nekk euh, weer boo xam ne weer bu sell la weer boo xam ne euh, yàlla buur bi daal dañu ci dañuy dëxëñ ay xéwal xéwal yoo xam ne yu am am solo la mm-hmm. comme ni nga ko waxee nag dëkk yu bëri suba ci alxames bi dinañ tàmbali li nga xam ne mm-hmm. moom mooy weeru koor bi te it njort nañ ne Sénégal dina ànd ak yooyu la dëkk njort nañ ne it fii ci Sénégal ren koor gi eh, dina doon tàmbali bi dina doon benn xam nga dañoo faral moom dañoo dem ba dañoo tàmm fii Sénégal mm-hmm. euh, woor boo xam ne du doon benn mm-hmm. ñi dañuy woor euh, ñoom avant ñeneen ñeneen um suba yu demee noonu mais ren moom euh, am ñu yaakaar ne ñëpp mm-hmm. dinañ woorandoo li ko waral wax nga ko sànq am nañu seen bu suba moom mooy commission d' bu coordination des musulmans du Sénégal muy suñu mbokk yi ñu gën a xam ci ibaadu ñu leen woowee ibaadu ñoom def nañu seen seen tour démb wante ñoom xamle nañ ne euh, li nga xam ne moom mooy euh, weer koor weer bi gisuñu ko euh, ce qui fait kon kon ñu ne dañuy matal trentième jour bu mois Chaban kon ñu dañ koy matal te ñu koy wax baraxlu ci wolof fanweeri mot kon suba ñu tàmbali bu fekkee ci wàllum li nga xam ne moom mooy commission d'observation bu croissance dinañ doom kon encore ñoom it xamle nañ ne bu sub tey bi la amal seen dugg njëkk te it njort nañ ne ñoom it bu ñu séentoo dinañ ko dinañ dinañ annoncé peut ne gis nañ ko bu ko defee kon dañuy umandoo li nga xam ne moom mooy euh, weeru koor bi xam naa it euh, astronome boobu di Mayram Kayre it euh, ñu ngi koy xaar euh, mu amal comme ni ñu koy amalee mm-hmm. ak du jot euh, observation bu croissance bu kii bi naan croissance bi naan comme ni ko comme ni koy defee rek mm-hmm. at bu jot ak appareil yooyu nga xam ne da koy yóbbu fële ci corniche ba mm-hmm. di observer bu ma fàttalee tuuti rek Imam Kanté barki démb mu ngi doon xamle ne li nga xam ne moom mooy weer wi mardi bi c'est impossible pour ñu gis ko. Euh, ci ab ci ab communiqué boo xam ne def na ko moom yow kan dafa nekk boo xam ne nag allah dafa xaw a polyvalent day yëngatu ci ay yeneen i yeneen domaine de recherche bokk na ci astronomie bi euh, waxoon na ne weer bi ce sera impossible ñu gis ko ci li nga xam ne moom mooy euh, fenn ci jaww ji ci àdduna bi yëpp. kon daanaka lii day confirmer li nga xam ne waxoon na ko comme ni ma ko waxee tey ñu ngi xaarandi commission bi. Eh, amal seen observation te du ñàkk dinañ wax ne ci li ñu yaakaar dinañ wax ne gis nañ ko bu ko defee incha allah ëllëg ci vendredi 23 jeudi 23 mars bi incha allah ñëpp ñu ñu ñun ñëpp ñu fekkee ko ñu war ko jàmm mu jeex si jàmm. amiin amiin pour si loolu xam naa dañuy ñëw si mbirum Ousmane Sonko mi nga xam ne dañ ko fële ca. suma assistance ñu gis ne kii di propriétaire bi nag di docteur Babacar Niang yoon daal na di ko teg loxo si mbirum Ousmane Sonko mi nga xam ne nekkoon na fa ba tamit si kooku nga xam te ni jege ñaale kii di maire bi di Bamba Fall nekk maire bu Medina la woon moom tamit ñu gis ne ñàkk na bakkanam si anam a doy waar ndaxte ñu ngi xam leen ni moom tamit ba mu demee hôpital laataa ñu koy faj dañ ko doon laaj ba xam ndax si Pastef la bokk wala déet loolu tamit nekk benn jafe-jafe boo xam ne ñu ngi xamal ne bokk na si loo xamante ne nit loolu na ko moom nga xam ne jege ñaale kii di Bamba Fall la si loolu tamit kii di docteur Ousmane Cissé nga xam ne moo nekkoon docteur kii di Ousmane Sonko mu ngi xam ne tamit d'après bi ñu ko enquêté si ñu mu xam ne mooy moom fajul benn yoon Ousmane Sonko. laaj bi ñu laajte nag mooy Ousmane Sonko ban docteur moo ko daal di fàcc ndaxte même corps bi nga xamante ne ni ñoo nekkoon si biir hôpital bi ñoom ñu si bëri nee nañ dañ leen tere woon amuñu woon benn yoon accès kii di Ousmane Sonko. si loolu nag kii di docteur Babacar Babacar Niang comme ni ma ko waxee sànq yoon daan na di ko teg la xam naa loolu bu dama lay am loo ci leeral tuuti rek. yaramam te it équipe boobu gars yi ne ba fii xamuñ seen identité xamuñ ñan la peut-être loolu dina indi benn flou mën na am ci mbir moomu kon peut-être du ñàkk jamono yu ñu jëm. dinañu am peut-être ay leeral ci ci loolu lele bu ñu suñu naataango yu waa IGFM ñu ngi xamle itam ne boobule arrestation c'est lié. à l' affaire euh, du procès de Bamba Fall maire Medina bi nga xam noonu mooy waajooju euh, ñu ne dafa faatu woon ak yooyu waaw ñu ne it xam bañ fa demee dañ koo laaj ndax ci Pastef la bokkam déet am na ñu ne ñu ne kon loolu c'est lié ak li nga xam ne mooy arrestation euh, kii di docteur euh, Babacar Niang en tout cas lu si mënti am daal peut-être du ñàkk euh, fan yi ñu jëm dinañu am lu leer euh, ci ci boobule mbir soxna Sène. si loolu tamit buur ñu gis ne kii di Ousmane Sonko waa Benno dañoo daal di ko porter plainte ndax lu mu doon wax ni benn complot d'assassinat lañ doon def ci moom loolu ban jàngaan nga ci am parce que euh, si vidéo bu ñu gis dañuy gis ne Ousmane Sonko à chaque fois moom Macky Sall lay nekk di attaquer sa sa si li ñuy gis mooy que ne. moom dafa xam xamle ni dañ ko doon jéem a assassiné Macky Sall ak ñu mu àndal. Mhm. léegi ñu gis ne waa Bennoo Bennoo coalition la ñu gis ne waa Bennoo waxuñu parti Macky Sall mais waa Bennoo Siwal Boppam ñoo daal di porter plainte kii di Ousmane Sonko loolu yan jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am de mooy damaa gis ne rek ay bataay politique la ay mhm. bataille de communication bataille de positionnement fi mu nekk nii. Mhm. dañoo nekk ci jamono joo xam ne mën nañ ko woowee peut-être mën naa ko woowee pré campagne pré campagne bu élection présidentielle euh, fi mu nekk nii ku ci nekk rek lu mu yaakaar ne bu ko defee dina nuire euh, ki nga xam ne moom mooy euh, opposant moo opposé moom mhm. teyit dina ci am avantage dañu koy def mhm. gis nañ comme ni nga ko waxee ngisal Pastef génn def li nga xam ne Euh, déclaration bi wax ci ne kon euh, tentative d'assassinat moom la jàppee ne mbir mi nga xam ne moom moo am euh, ci ginnaaw ko comme benn Bokk Yaakaar comme niñ koy defe moom gis ne saa yu Sonko kii rek <laughs> dañuy gis ne ñoom tam dañuy amal ab conférence de presse loolu tontu ci tontu it ñu xamle ne dina ñëw porter plainte ki nga xam ne kon moom mooy Ousmane Sonko ngir daal yooyu nga xam ne. yëkkati na ko man daal loolu laa si gis ab loo xam ne daal benn bataille de communication la bataille de positionnement. Mhm. Euh, bataay boo xam ne daal ku ci nekk da ngay jéem a euh, nuire da ngay jéem a daal faagaagal ki nga xam ne kon moom mooy ki ngay jàmmaar loolu man daal mhm. jàngat boobu laa ci am soxna si. Mhm. dëgg la loolu buur ñu ngi lay baax a baax si yaatal yu am solo yi nga xam ne indil nga ñu ko si loolu ñuy ñëwaat yow si grève bi nga xam ne waa CUSEMS amal nañ ko. grève bi nag grève bu 48 heures la maanaam démb mardi ba ci tey jii ni ñuy wax ak yéen ni grève bi maanaam yooyule les ñu ngi koy ñu koy amal di ñaawlu nag li nga xam ne amoon na dal ci kaw ki ngeen xam ne mooy seen njiit di Dame Mbodj ñu koy ñaawlu tamit di wax tamit ne këpp bëpp enseignant boo xam ne tey nañ ko dañ ko war a bàyyi. loolu tamit bokk naa ci li nga xam ne moo waral seen grève boobu waaye pour suñu toogee ba gis Dame Mbodj ñu gis ne. otom bi daal nañ di ko tirer ay balle d'après vidéo yu ñu gis si loolu ñu gis ne moom tamit dam Mbodj def na benn vidéo def na ab euh, déclaration même duma sama déclaration ndaxte am na suñu mbokk journaliste yi fa nekkoon di xamle ne dañ ko doon jéem a fàtt ana loolu ban jàngat nga ci am tey buñ demee ba waxatuñu ay journaliste bu ñu demee ba à part ñun yi ni ñuy wax ne dañoo nekk en danger ñu gis ne yooyu les enseignants ak ki nga xamante ne nii moo di dàmboojo tamit muy naqarlu situation réew mi di dem bay xamle ne dañoo naroon a jël bakkenam ci jouru 16 mars boobu ana yenn jàngat nga ñu ci mën a indil tey. waaw euh, soxna Asel euh, comme loolu comme ni ñu ko gisee euh, la ko sénégalais yi gisee Dame Mbodj mu amal ab vidéo vidéo boo xam ne sax comme ni nga ko waxee ay naataango ñu ngi fa woon dem nañ daal ba bi mu xamee ne peut-être bi mu demee ba njortu ne ñii dañ ko bëgg a faagaagal mu ne ci la defi xël moom it ñoom it ñu topp ko nee na di tiire ba mu ne tiire nañ lu toll si juróom ñaari bal ci li nga xam ne moom mooy otoom mm-hmm. image yi aussi buñ ko gisee ci li nga xam ne moom mooy vidéo bi gis nañ effectivement ay bënn-bënn mu ci mu ngi ci mu ci li nga xam ne moom mooy oto bi man nag damay jàpp loolu mbir mu garaw la mbir mu garaaw a garaaw la te sax man yaakaar naa nit ñuy auto saisiro ci yenn dossiers yi pour man lii jar na auto saisir lii jar na ñi nga xam ne moom mooy justice mhm. auto saisir si def ci benn enquête boo xam ne enquête bu sérieuse lay doon quoi ba ñu xam exactement mhm. lan moo lan moo waral lii quoi parce que lu mel nii moom di am réewu Sénégal lu yéeme la lu lu yéeme la lii mhm. li may fàttali moom mooy assassinat maître Babacar Seye ba nga xam ne comme anam yi dañ ko toppoon tiire ay bal ci mm-hmm. kii am euh, te ba léegi mbir moomu euh, daanaka yaa ma gën a xam fi mu mujjee kon nag euh, lu mel nii bu amee man wax dëgg yàlla maa ngi ciy xaar justice auto saisiru mm-hmm. ñu leeral ko parce que mbir mu garaaw la quoi qu'on puisse dire bu fekkee ni mu ko waxee nii la demee mbir mu garaaw la lu mel nii di am ci Sénégal kon man maa ngi xaar justice def li nga xam ne moom mooy liggéeyam bu ñëwaatee nag ci grève bi nga xam ne CUSEMS authentique bi nga xam ne moom la jiite mu ëmb ay mu ëmb ay jàngalekat di syndicat bu ëmb ay ay jàngalekat man nag euh, ànduma ci anam bi ñu ko defee mm-hmm. anam bi ñu ko defee maanaam def grève totale euh, quarante huit heures ay élèves yoo xam ne seen yoon nekku si mm-hmm. ñu bëgg leen euh, loo li nga xam ne moom mooy mbir mi d'accord d'accord naa nag peut-être ñu manifester parce que seen njiit mm-hmm. seen njiit la dara dal ñu jóg manifester c'est très normal mais forme bi nga defee ànduma ci format bi ànduma si pour man effectivement oh, ok waaw dañ ko boole ok waaw ma juum am yeneen revendication ok ok waaw par exemple peut être loolu mën nañ comprendre waaw la fait que kon ñu boole ci yeneen i revendication ak yi ni mel mm. euh, bu fekkee loolu la kon peut être day jaadu pour man lu jaadu la ñu def marché wane ne li nga xam ne moom mooy seen ku njiit réclamer justice am euh, mm-hmm. par la même occasion comme ni nga ko waxee dañuy réclamer ñu libérer ñoo xam ne seen ñooñ lañ ñu bokk si ñoom ñu ñu teg loxo wante it yeneen revendication yoo xam ne dañ ko dëxëñaale kon ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy yooyu la yooyu la yooyu la manifestation soxna Sène mhm. jërëjëf buur si yooyu la jàngat yu am solo yi nga ñu indil tey si loolu xam naa dama lay bàyyi nga ñëwaat ñun si rapport bi nga xam ne benn département américain def na ko si tolluwaayu ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal waaw comme ni nga ko waxee soxna Asel département américain dañoo amal ab euh, jàngat euh, ñu nag xaatim ko ci ab rapport 2022 nag la rapport bi concerné ñu nag euh, seetlu si ay doxalin yoo xam ne daal jaarul yoon ci wàllu comme ni nga ko waxee tolluwaayu àq ak yelleef doomu aadama fii ci Sénégal muy les droits humains mm-hmm. ñu gis ci ne daal nguurug Sénégal dina faral di amal ay doxalin yoo xam ne dafa doy waar jëm ci wàllu euh, manifestation ni ñu koy reprimer ay manifestation ay yu ñu ay ay nit sax yu ñu faat ay nit sax yoo xam ne kon euh, dañ leen assassiné te gis nañ ne maanaam euh, mbir ya na mu demee jaarul yoon bu ñu xoolee ba ci biir day am day am peut-être yoo xam ne dina ci indi responsabilité li nga xam ne moom mooy moom mooy état mm. ak it ay mbirum corruption maanaam ger ak luubal yoo xam ne tam dañ koy nemmeeku ci li nga xam ne moom mooy fii ci sunu suñu réew ay nit yoo xam ne dañ leen jàpp te ñu te ñu jàppee mbir mi détenu politique maanaam ay nit yoo xam ne dañ leen jàpp te jàpp bi ñu leen jàpp mbirum politique moo tax rek euh, ñu teg leen yoon euh, lu si bëri daal loo xam ne kon rapport boobu nga xam ne kon moom mooy euh, département département d' état bu Amérique ñoom ñoo ko amal jëmale ko kon ci Sénégal loolu nag peut-être jàngat bi ma si mën a am mooy day xaw a niru benn recul démocratique euh, bu fekkee ne wax nañ loolu te it euh, ñu seet ne loolu ay rëq-rëq la yu ñu war a jooyante mën nañ ci jàngatee ni kon côté démocratie xaw na am ay rëq-rëq mm-hmm. ci ci kon ci suñu réew Sénégal xanaa rek ñu xoolaat nuñ koy mm-hmm. nuñ koy defaree ñu koy jooyantiwaatee ndax Sénégal kat dafa mos a nekk exemple démocrate Sénégal dafa mos a nekk exemple li nga xam ne moom mooy pays démocrate même yeneen dëkk yi tey dangay gis ñoom dañuy laaj à chaque fois ana lan moo tax Sénégal daal saa fi élection amee rek euh, dañuy gis ne Euh, comme ni muy ni muy ni muy rëbee ci yenn dëkk yi du ko rëbee fii à dañuy gis ne daal élection bu amee bu passé dañuy joxe résultat yi jeex na ñu jàll ci leneen mu nekk benn exemple la de démocratie boo xam ne Sénégal am na ko comme nag euh, waruñu nangu dara loo xam ne pour man waru mën a delloo ginnaaw boobule démocratie li ñu war a def kay mooy ñuy def ay doxalin ak i jéego yoo xam ne day jëmal boobu boobule démocratie kanam mais pas loo xam ne kon da koy delloo ginnaaw. waaw jërëjëf buur si loolu xam naa dañ koy jeexale tey waxtaan yor yoor bi ñu jeexalee ko rek ak suñu gaynde yi nga xam ne war nañu football éliminatoire Coupe d'Afrique de Nations ñu amal boobule match nag match aller ñu amal ko fii ci Sénégal ci stade yu wadd le 24 dañuy amal match match aller bi retour bi nag ñu ngi koy amal le 28 mars. ñu ngi gis nag ni ñu ngi amaloon seen premier entraînement bi lundi bi ñu jóge si loolu ñu gis si vingt quatre jours yi nga xam ne convoqué woon na leen si boobule entraînement ñu gis ne quatorze jours ñoo fa daaloon di nekk mu amoon tamit benn surprise boo xam ne nemmeeku nañ ko fa muy teewaayu kii di Cheikhou Kouyaté ñëwoon na si boobule entraînement te ñu gis ne kii di coach bi woowu woowu wooluwu ko. coach bi nag di xam ne ne kii di Cheikhou Kouyaté moom moo sàkk woon à ce que mu ñëw participer si boobule si boobule entraînement muy xam ne tamit ne mënu ko ko woon euh, beñal ndaxte kii di Cheikhou Kouyaté ginnaaw lu mu defal euh, équipe bi yëpp mënu koo beñal boobule demande si loolu tamit indi na yenn yenn yoo xamante ne nii ay polémique comme à chaque fois ni ñu koy defee fii ci Sénégal rek ku nekk di naan euh, erreur la Aliou Cissé war woon nangu présence su kii di Cheikhou ku Kouyaté si équipe bi ginnaaw bi nga xam ne wóoluwu ko ci loolu tamit xam naa dama lay bàyyi nga indi si ay jàngat ñu gis tamit si première si première entraînement bi ñu gis ne kii di nois Noah Fadiga tamit di ci wane boppam ginnaaw buñ ko wóoluwee si boobu les équipe xam naa bu dama lay bàyyi nga indi ñu ay jàngat si éliminatoire kan bu ñu jëm ak entraînement Lions yi naka nga ko gisee laataa ñuy tëj waaw comme ni nga ko waxee soxna Asel euh, ñaari match la yoo xam ne ñu ngi ko war a football ak euh, Mozambique comme ni nga ko waxee le vingt quatre mars bi fii lay doon ci Sénégal stade Abdoulaye Wade ca Diamniadio beneen bi war am le vingt huit muy match euh, retour bi fi mu nekk nii nag ñu ngi ci préparation yooyu la match nga xam ne day compter ci éliminatoire bu Coupe d'Afrique bu deux mille vingt trois entraînement yi ñu ngi koy amal ci terrain annexe bi nekk foofu le foofule jam eh, Diamniadio terrain annexe bu terrain Abdoulaye Wade bu stade Abdoulaye Wade bu mag bi eh, gis nañ amal nañ seen première séance comme ni nga ko waxee ñun nemmeeku nag ne eh, li nga xam ne sax moom mooy joueurs yi mujjantal gi ñëpp mujjee nañ ñëw sax ba mu des kon ki nga xam ne moom mooy Pape Gueye mi nekk ci blessure maanaam dafa am gaañu gaañu kon moom moo tax ba ba teewagul wante fi mu nekk nii 24 joueurs yi Aliou Cissé convoqué woon kon Pape Gueye rek. moo ci des te nag euh, ñàkkul dina rejoindre li nga xam ne kon moom mooy équipe euh, équipe bi gis nañ ci nag euh, comme ni nga ko waxee li si gën a peut-être amit solo bokk na retour saa Mané gannaaw bi nga xamee ne am na blessure ba mu tere woon ko participer ci lii di coupe du monde bi mm-hmm. kon delsi na te it njort nañ ne dina wanewaat boppam comme ni mu ko daan comme ni nga ko daan defee leneen lu ci bees euh, moom mooy euh, Noa Fadiga moom nga wax di doomu international euh, mhm. Khalilou Fadiga moom sax buggoon nañ ko convoqué lu jiitu mais mhm. yaakaar naa ci mujjantal gi am na lu ko gàllankooroon mais bi yoon nag ñëw na ñuy xaar mu won ñu ana naka la mënee ci biir terrain bi leneen li nga ci wax muy ñëw ko muy participation Cheikhou Kouyaté ci lii di. entraînement yi ah man de gisuma ci lu gisuma ci lu négatif bi Sénégalais dañoo bëgg po man damaa gis naa Sénégalais dañoo bëgg polémique quoi à chaque fois il polémique euh, pour tout et pour euh, rien man daal loolu laa ci jàngat mais ku xam euh, Cheikhou Kouyaté ak patriotisme bi nga xam ne am na ko Cheikhou Kouyaté dafa bëgg équipe nationale dafa nekk koo xam ne dafa bëgg équipe bi boo yenn saa yi gis sax ci terrain bi bu koy football sax da koy wane quoi kon le fait que mu ñëw Euh, participer ci entraînement yi donte convoqué wuñ ko euh, pour man motivation rek la mun a yokk waaw motivation la mun a yokk ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy joueurs mais pour man daal euh, gëw ma ne lu négatif ñoom ñu jotee ñu ñu jot sélectionné si beneen euh, équipe bu ndaw bi ñoom ñëpp comme ni ko waxee rek dama jàpp ne motivation la daal source de motivation laa ci gis ak daal benn patriotisme boo xam ne am na ko ak bëgg bu mu bëgg. Mhm. équipe nationale kon bu sàkkoo ñëw ki nga xam ne moom mooy euh, euh, sélectionneur bi nangul ko ko. Mhm. yaakaar naa daal gisuma ci lu négatif daal. Mhm. <laughs> dëgg la buur di la jaajëfal ba tey yooyu lay yaatal xam naa dama lay bàyyi nga tàggoo rek ñu daal di tëj. waaw di la jaajëfal bu baax soxna Asel di jaajëfal euh, sunu cadreur euh, Abdel di jaajëfal it mbokk internet yi nga xam ne kon saa su ne ñu ngi ñuy topp ci seneinfo point net ak info international ak suñu plateforme yëpp di ñaan euh, koor gi nga xam ne moom la ñu dëgmal te ñu bëri njort ne ëllëg dina tàmbali incha allah ñuy ñaan yàlla. may ñu ñu fekkee ko ak jàmm fekkee ko ak tal lépp loo xam ne incha allah def nañ ko si yàlla yàlla yàlla ñu yàlla xiir ñu jàmm ko si. Mhm. Ah, ñu bañ a tayal yàlla ñu yàlla xiir ñu bañ a tayal jàmm ko si te lépp lu ñu si jàmm it mu nangul ñu ko incha allah ñu fekkaat ko ay koor yu bëree bëree bëri. incha allah buur euh, amin si yooyu la ñaan di la jaajëfal bu baax a baax yow tamit si yooyu la yaatal di jaajëfal également suñu caméraman di jaajëfal internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre suñuy plateforme di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni ko buur waxee rek di leen ñaanal wu jàmm te di ko sàpp si yéen si loolu tamit maa leen di jox dig daje ginnaaw ëllëg incha allah jërë ngeen jëf. you send me a phone xibaar yu wóor te leer ci bile jamono restez toujours informé sur Sene Info xibaar yu wóor te leer ci bile jamono fii la mburu bi tàngee fii lay xayam xayamee xibaar yu wóor te leer ci bile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono